dalee na jàmm ci xibaar yi yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo tànk na ko ngir daal di koy déglu l'évidence yéenekaay dina xamal ne moom moo di Ousmane Sonko dañuy ragal kay a yàgg a doon ci ki nga xam ne bu doon yàgg dong yem ci waaye yëf kay nar naa tàng jër ci ki nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko ndax boo moytuwul dina yàgg lool ba mel ni kuy togg li yéen i kaay duñu xamal ne moom Ousmane Sonko kay ndax dina wuy ji ci li nga xamal ne maanaam daal attekat boobee nga xam ne rek moom la ñuy wax ne rek Ousmane Sonko doon na xamal ne ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di attekat yi taxawaay gi nga xam ne rek war su nañu ko amal maanaam daal convocation boobee jox nañ ko ki xam ne rek même moo di maître Khoureyssi Ba tamit yëgal na ko Ousmane Sonko ne jot naa convocation boobee ndax ma jël ko wala moom kay lam ko wax moo di jël li si ko yéene kaay dina xam ne fekkee ne wuy jul na xam ne takk der yi ci seen jël nañ ko ngir jëli ki nga mbir ma kay nar naa tàng tajambaajoo la ko waral moo di am na ci ñeneen ñoo xam ne sax yeneen parti politique la ñu nekk faruñoo ak Ousmane Sonko waaye jamono ji dañu koy jàppal tànk jàpp ne nag Ousmane Sonko la ñu ko bëgg def ak jaay doole la tey nag du ko nangu enquête yéene kaay duñu ma xurum xaax

ñii daal bu fekkee ne ay kilifa diine lañ am nañ leneen lu ñu war lu du du naan dañuy gis aji saar dañuy waxtaan ak moom loolee lu garaaw la kaddu yaa ngi ci source ay ay soldaar du ñu xamal ne jamono ji tax na kay jamono ji njiitu réew régime Macky Sall sant na police ak bi nga xam ne rek jot na koo yóbbu wal fajri yéen kaay duñu xamal ne ñàkk yi nga xam ne rek boobaak léegi tàmbali nañ ko ngir xeex mbas mi dafa mel ni kilifa yi ñoo ko ngar dajjoo vox populi yéen kaay duñu xamal lu doy lu xew ca Parcelles Assainies unité 15 yéen kaay gi duñu xamal ne benn moo fa doon jiite juma ci àjjuma ajjuma ji ca xutba ga yéenekaay gi duñu xamal ne mu naan leen waaye yéen ñi dem leen ngeen ñàkku ji yéenekaay gi duñu xamal ne jàkka ja kay moo mujjee mel ni rek daanaka kenn nekku fa askan wa di rocceeku di fa bàyyi imam ba la ko sabab nag moo di jàpp nañ ne imam ba day politique mu nekk nag lu day waar